بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما mbokk yi ñuy seetaan yëpp ñu ngi leen di nuyu di jiital nag ci suñu kàddu yi sant buur yàlla di ko ñaan mu dollee julli moom borom bi ala maulana rasulillah alayhi salaatu wassalaam ak waa këram ki saxaabaam ak soxnaam yaak mboole njabootam ga salaatu ak salaam boo xam ni danay di baawaan ak di xëppu ba àgg ci képp ku teg sa tànk wala sax day ku tegul sa tànk ala siratil mustaqim yàlla na bur yàlla boole ñu ca ña teg seen tànk ala siratil mustaqim e, e, di wax rek ni ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jàmm yàlla ak yërmandey bur yàlla ak barkeb bur yàlla yàlla na bur yàlla boole defal nu ko léegi nag ñu ñëw tayit ci Laxdari bi nag waaw ñu ñëw ci xam nga boo seetee cours yi weesu defoon nañ ci ay présentation ki introduction tey nag cours bi nga xam ni moom ngeen di jël mooy cours numéro borom téere bi nag gis nga ko mi ngi nii tey fii laa jëm bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina muhammadin khatimin nabiyina wa imamil mursalin awwalu ma yajibu ala almukallafi tasxiixu imanihi thumma macrifatu ma yuslixu bihi farda caynihi ka axkaami alsalaati waltahaarati walsiyaami lii mooy seen premier cours lii ndegam waxtu wi dina ko mate incha allah xam nga amoon na ay leeral ak i détails yu ma waxoon ca introduction ba tuuti rek ci ni ñuy firee bismillahi rahmani rahim yépp baax na waaye xam nga bu fekkente ni bii ni da ngay wax ak niveau yépp mënoo wax ci niveau yépp waaye danga seet nu mu gën a digg doomu rek nga waxe yaakaar naa ñi may waxal comprendre nañ li ma bëgg ga wax xam nga booy wax ak koo xam ni day soog a dal ak koo xam ni ba mu dalee yàgg na am na lu mu jot a xam ak koo xam ni li ngay wax fekk na ko xam na ko ba noppi jàng na ko da koy nafaraat ci yow rek boo xeful sax moo la ca raw ak koo xam ni lam ca xam sax wallaay boo demee xamoo ko ci te moo ngi toog di la déglu kon donc tu parles à tous les niveaux léegi yow su boobaa nag la lay mën a dimbali je parle cest bi may waxee nii maa ngi wax c'est-à-dire la lay dimbali xam nga mooy lan c'est-à-dire li ngay jàngale na digg duumu bu mu suufe lool waaye it bu mu kawe lool détails yi nga xam ni moo ci nekkit ala kulli xaal la ca jàppandi nga indi ko loolu moo waral bu ngeen gisee ma firee woon ko keroog bismillahi rahmani rahim bi na ma ko firee te moo di xoolal bismillahi xam nga dañuy wax ni ma maa ngi tàmbali ci turu yàlla nena leen yàlla kenn du ko wax déedéet yàlla deesu ko sallalu ah daa mel ni sa baay nga jaar ci turam rek moo ne doo ko def danga naan baay diw wala nga ne ko papa sax nag sa yaay doo jaar ci turam waa léegi lan moo tax yow ñeme woo ko ci sa yaay ak ki sa papa ba pare nga di ko ñeme ci yàlla yàlla fenn rek lañ la may nga sàllalu ko te booy jàngale waaye boo jàngalewul doo wax yàlla da nga naan buur yàlla walla nga ni buur yam ci kon doo wax ni bismillahi maa ngi tàbbali ci turu yàlla déedéet bismillahi maa ngi tàmbali ci turu buur yàlla gis nga baat bii di allahu nag Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu biñ ko laajee li muy tekki dañi kenn xamu ko ñu ne ko lu tax mu ni parce que baat liñ ci xam bu fekkee dañuy wax lii lay tekki da ngay indi beneen baat rek bu tolloog moom nga ni baat bi baat bii lay tekki du dëgg waaye baat boo xam ne boo koy tekki ay phrase yu bëri ngay boole pour tekki ko c'est parce que xamuloo kon baatu allah prix mi nga xam ni moom moo ci gën a jege mooy al ism al jaamic li jamici sifaati wal macaani wala li macaani li jamici macaani ismu al jaamic li jamici macaani wal asmaa mooy allah loolu mooy lan ci wolof mooy tur wi nga xam ni moo boole dajale englobé jubluwaay ak sensu mboole turu yàlla yi ak mboole melokaanu yàlla yi fi mu ne boo nee rahmaanu ni rahimu maliku quddus salaamu muminu muhayminu azizu jabbaaru mutakabbiru xolal ba ca musawiru ja asmaullahi alxusna yépp boo leen boole tur bi nga xam ni moom moo leen ndar képp dajale leen mooy allahu waaw xam nga loolu du caaxaan moo tax foo ko waxee cheytaane daw c'est parce que attanu ko bismillah foo ko waxe seytaane daw moo tax nag borom téere bi tambale ko nañ dem mu ni xoolal moo tax maa ngi daan wax bismillah maa ngi tàmbali ci turu buur yàlla mi ci tur yu kawe yi ak melo yu sell yi noonu lañ ko daan firee maa ngi tàmbali ci turu buur yàlla mi ci tur yu kawe yi ak melo yu sell yi arrahmaani waxoon naa ni mooy buur yàlla mi fees dell ak yërmande expliqué woon naa ko arrahimi waxoon naa ni mooy buur yàlla mi sax dàkk ci yërmande expliqué woon naa ko borom téere bi ni wa sallallahu yàlla na buur yàlla doollee julli waxoon naa nag lu tax parce que Sidi Ahmed Tijani radiyallahu taala anhu def ni maana salaat kooku dëgg-dëgg yàlla rek moo ko xam kon su boobaa bu fa nekk di wax yàlla buur yàlla dooli xéewal ak teraanga da naam baax na waaye taxul mu firi as-salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam taxul mu firi ko neel rek wa sallallahu yàlla na yàlla julli ala sayidina ci sunu sang ba muhammadin am na ñoo xam ne dañoo am problème mu sayidina bi am na ay nit yoo xam ne nee nañ gëm nañ yonent bi te boo nee sayidina dañuy am problème quoi ci nga ne sayidina muhammad mais c'est grave ce qui se passe mais am na loo xam ne xel nangu ko parce que boo doon waxee lu ñu lay wax yonent bi alayhi salaatu salaam buur yàlla ba mu waxee ni na ngeen julli ci moom yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu yéen ñi gëm yàlla bokk ci dairatul iman borom bi sant na leen digal na leen c'est un impératif divin lan la wax na ngeen di julli ci yonent bi sëlmal ci moom saxaaba yi daw ñëw ci yonent bi ni ko kayfa nu salli aleyk naka la ñuy jullee ci yow yonent bi ni leen jullee leen ci man nii allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim fi laalamina innaka hamidun majid xam nga loolu la yonent bi wax sallallahu am na yeneen riwaaya sallallahu alayhi wa sallam bëri na bari na ay riwaaya ci salaatu boobu c'est-à-dire saxaaba yi niñ ko riwaaya bari na mais c'est-à-dire man waxuma loolu xam lu may wax kan moo wax allahumma salli ala muhammadin du yéen saxaaba yi ñoo ñëw ni ko dañoo bëgg nga xamal ñu jàngal ñu nan la ñuy jullee ci yow ñoo ko wax loolu léegi yonent bi di leen wax leen allahumma yow buur yàlla salli jullil ala muhammadin ci muhammad gaa yi nga xam ni dañuy bañ sayidinaa ji ni yonent bi boole wu ci woon sayidinaa ji kon lu ñu ko ciy boole je suis vraiment désolé de le dire mais c'est le cas te war ngaa xam ni yow yonent bi mooy wax bokkul ak yow booy wax yonent amul sang comme amul sang mooy sang bi moom munul wax yow buur yàlla jullil ci sang bi Muhammad munu ko wax yow mi mu doon sa sang yaay wax yow yow buur yàlla jullil ci sunu sang bi Muhammad gis ngeen sew-sew bi moo tax noonu rek nga mën waxe allahumma yow buur yàlla salli julil ala sayyidina ca sunu sang ba muhammadin loolo waral fii xolal wa sallallahu yàlla na buur yàlla dollee julli ala sayyidina ca sunu sang ba te sax nag sax nag moom yonent bi moo ko waxal boppam waaw moo ko wax di ah da ngeen fàtte sallallahu alayhi wa sallama eh, eh, keroog ba nga ba ba ba mu toogee eh, ca biir saxaabaam ya ba yàgg mu ne ah sama jaxasoog yéen nag bu mu tax mukk ba ngeen foog ni seen morom laa xam nga léeg-léeg nga dégg ni diw wattuma du ma sa morom waroo koo wax kooku yoneen rek ko ko war a wax wattuma du ma sa morom yoneen rek ko war a wax sallallahu alayhi wa sallam te wax gi yëpp dara waralu ko xam nga lu tax mu wax ko c'est parce que day bañ ku ko réere ba fowee xaqam jëlee ci alkande te yéenewul nit ña loola looloo waral xolal mu tëb ni rek ni xol lastu ka mislikum man duma seen kem tolloo maag yéen déedéet na leer lastu ka ahadikum man nuroo ma kenn ci yéen duma kenn ci yéen attention ah. lastu ka ahadi minkum duma siin moroom na leer mu mel ni dañ ko ni waa yow kan bon xolal baatub sayidina ji gaañ yi bañ nañ dem ci xadis ba yonent bi neewul ana sayidu wala di aadama wala faxr aadamu fa man duunahu taxta liwaa'i raaji al xadisa aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam xoolal yeneen ni ana man te xam nga le moi est haïssable waaye ah ndax ci yonent bi nag xataa Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu le moi n'est même waxuma la ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku la gën a xam boppam buy wax ak yow munu la waxee munuta waxee ak yow nu mooy joxoñ boppam nag looluy dëgg moo tax yonent ni ana man laa ni man mi leen ni du ma seen moroom ngeen bëgg a xam may kan man maa di du wala di aadam may sangu mboole doomi aadama yi ñu ni ko wax bi rëy na de mu ni lum ko rëy rëy wala faxara tiitaru amu ci puukare wu amu ci damay bañ ngeen jaawale sama xaq ak xaq keneen waaye seetal lii waay moo tax mu ni wala faxara amul tiitaru de amul puukare wu de dafa di dama bañ ngeen juum ci sama xaq ñu ni ko ha ah, mu ni aadamu yonti yàlla aadam faman duunahu ba kak juddu bañ ne suba la yowmal qiyaam diggante boobu yëpp laa wax taxta liwaa yi ëllëg yowmal qiyaam ca sama keppaar la ñuy taxaw laa nii bu ma si xiwul tànk kenn ñemewu ko kookoy rasulullahi moo tax borom téere bi Seydi Abdurahman ni yow buur yàlla maa ngi lay ñaan ci sang boobu nga julli ci moom muy sayidina gis nga ko suñu sang ba suñu sang ba kana mu ni waaw muhammadin laa wax di parce que amuñu beneen sang ñun benn sang boobu la ñu am muy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam et puis jeex na waxoon naa Muhammad ji nag lan lay tekki ak fan la jógee ak maani yi ci nekk ca introduction ba waa dem leen ngeen seetaat ko rek wa alihi ak waa këram waxoon naa baatu al li muy tekki maanaam waa kër yonent bi mooy ñan ñi yoreen jaboote ba ñi mu njaboote njaboote leen ñi ko yaatal ak ñi ko xatal fañ ko yamale yëpp waxoon naa ko wa sahbihi ak i saabaam buñ ne diw min ashaabi rasulillah dafa bokk ci àndandoo yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa am ay critères yoo xam da nga ko remplir loolu it leeraloon naa ko ci introduction bi wasallama te mu dollee sëlmal ci moom borom téere bi salaatu ala nabi la ubbee ba ci tegee nag doog a xool doog a doog a sant yàlla ni alhamdulillahi rabbil alamin xam nga bari na buñ ko firee waxoon naa ko ci introduction bi mboole xaaji sant yi ñeent wallaay baax na sant gi buur yàlla sant boppam ak sant bu buur yàlla sant jàmbeeg jaam bi sant bim sant buur yàlla ak jaami yàlla yi sant gi ñu santante yépp day delluwaat ci yàlla yépp baax na waaye Cheikh Tidiane nag radiallahu taala anhu ci leeral ga dafa ni woon buur yàlla ba muy sant boppam booba sant bindagul kuy sant ba di ko digal mu sant ko parce que ce que les gens ne comprennent et jusqu'à là là xam nga mooy lan mooy saa borom yàlla ci alquran ba mu daj amul fu mu waxee ni déglul bu baax li may wax amul fu mu waxee ni na ngeen ma sant man yàlla amul dafa mel ni déggu sama wax ji de Mustaf sa borom bi ci alquran be mu daj amul fu mu waxee ni xoolal nangeen ma sant man yàlla na ngeen ma gërëm rek c'est parce qu'il y a une très grande différence sant ak gërëm bokkul yàlla jëmmam ji moom lañ war a sant te jëmmi yàlla ji yegg ca ba xam na mu toll ba mën koo sant ca na mu yoyob jaam mënu ko yàlla rek ko mën moo tax moom mooy sant boppam moo tax muy wax ni alhamdu dëgg dëgg cant lillahi aji sax la di ñeel buur yàlla rabbil alamin buur yàlla mi nga xam ne mooy borom mi def yàlla moo a sant boppam moo tax nit yàlla yi buñ ko daan firi duñ ko firee ni comme sax alhamdulilah dëgg-dëgg cant rek yam ci dëgg dëgg cant ga yàlla sant boppam yow da ngaa mën a sant yàlla yàlla da sant nga sant ko yow sant la ko di lim la sant mooy nga gërëm ko il faut que les choses soient claires ji li ci ne mooy wa qalilun min ibadiya shakur ñu néew ci sama jaam ñi ñëw may gërëm man yàlla ci bu neexee ak bu naqaree alquran ji li ci nekk mooy anishkur lii wali waaji dayk buur yàlla nee na la yow jaam bi yow doomi aadama fa ma la jaarale ci ndiggal bàyyi nga tuxoo ca ba ci ruxumu ndey ma ànd ak yow ba nga génn puccet di ndit ni wee jooy ma boole laa ki malaayika ñuy foog yow ngay xaqataay ak ree dindi stress bi ci yow bu ñëpp dee nelaw ngay xoole di wattu sa bopp maak yow maak yow maak yow maak yow ba nga di léng dim ponkal waay waay waroo maa fàtte nag maak yow woon démb waay waay na doon maak yow tey an lii mbir tey mbir uskur lii gërëm ma man buur yàlla wali waali day ka nga gërëmaale sa ñaari waajur yi la jottali xéewal gi ndax ci ñoom laa ko jaarale loolu la yàlla ah. hatta ida balaga ashudda wa balaga arbaina sana qala rabbi awdicni gis nga an ashkura waxul an ahmada nicmataka allati ancamta alaya wa ala walidayi wa an acmala salihan tardeh wa aslix li fi dhurriyati inni tubtu ilayka wa inni min almuslimin mu ah, tax daal xam naa ni eh, waa yi war a leer bari na de ah yàlla nañ ci yàlla dimbali rek mu leer waaw yàlla nañ ci yàlla dimbali ah bon nag ah foofu naa ci taxaw noonu rek jombul yàlla dina tàggat yeneen doomu aadama yoo xam ne sax buñ ñëwee incha allah gannaaw bi daañ ko gën a xóotal mu gën a leer ci ci xel ak boppi nit ñi incha allah xoolal alhamdu sant ga yàlla sant boppam loolu leer de dëgg dëgg ga yàlla sant boppam laa ni sant googu ñeelul keneen loolu mooy lan bu fi taxaw di wax nit maa ngi lay sant parce que sensu wax bi loolu la bu fi taxaw di wax nit bu fi taxaw di wax way jur naan ko ar yeneen sax bu ko taxaw naan ko maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm muy sukuru looloo dox sa digganteeg moom cant buur yàlla rek kaya yow mais loolooy dëgg il faut baat les mots en leur sens aussi ba mam yoo xam ne ay gàkk la yoo xamante ne bii li mu sof dafa yàgg rek tiré en longueur transcender ay génération mais taxul mu doon dëgg it nag waaye kenn du ci bindal kenn bàkkaar ndax fi mu ne ku ni maa ngi sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin boo nee maa ngi sant nit it xam nañu lan ci jublu mooy maa ngi koy gërëm rek et puis waaye du tere nag ab jàngalekat def la part des choses ah loola rek ngeen baal ma kon nag da wax ni alhamdu dëgg dëgg cant ga yàlla sant boppam ndax moom rek ko mën nag keneen mënu ko hmm. eh, dafa mel ni dañ ma déggul rek waaye xoolal gërëm yàlla sax mënta ne bopp non non pour wax ji leer sax nag xoolal gërëm yàlla sax ci xéewalam yi mu ñu defal mënta ne xam nga lu tax fi mu ne xéewali yàlla yi la yàlla defal Seyd Ahmad Sukayri ji radiallahu taala am na téere bu mu liggéey doon ca firi jawahir al maani jotu la yegg saan yàlla na ko yàlla yërëm mu tuddee woon ko tijaanul gawaani fi charxi jawahir al maani soo demee ci introduction ba mi ngi teqale diggante sant ak ngërëm mu ni attention sant yàlla rek eeyoo te moom dong ko mën ci jëmmam ji waaye leneen li ci yéeme moom ngërëm li dox suñu digg ak yàlla sax ñun mënuñ ko lott nañ ci ko lu tax mu ni ndegam buur yàllaay wax ci alquran wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha bu ngeen dee wuta wàññi ak di lim di compter di décompter li nga xam ne mooy eh, eh, xéewal teraanga njëkk bi ñu yàlla defal bu ngeen ko bëggee wàññi da ngeen lott mais du ngeen ko dajal du ngeen ko mën matal waa loo mënta matal nan nga mën a taxawee di sa gërëm yàlla wala déggoo wax ji di ko mën mais mënuloo ko dèjà loolu rek lott loo nañu waxuma laak nag si rahmat sukay wax bi mu wax dafa bak yàlla bi mu koy bàkk xam nga lu mu ko bàkkee daf ni maa ngi bàkk sellam nga moom buur yàlla ma nga xam ni bu ñu jëloon suñu jëy yi wala boog suñu bët yi def ko muy ay jë transformé ko bët ak ni mu sensible ñu transformé ko def ko muy ay jë jë aljabha front yu ñuy sujoote tiine yu ñuy sujoote jël fañ war a sujoot tàngal ay rab ba mu xonq ñu di ci jam suñu bët yi métit boobu ñu cay wute d'abord gërëm xéewali yàlla yi gis nga loolu nu mu méttee boobu nee na boobu sacrifice bu ñu ko defoon itam taxul ñu dabu wala ñu yegg ci boo xaajee xéewal yi ñu yàlla defal yépp nga dajale ko xaaj ko dix parties jël neuf yi teg fee jël un dixième bi xaajaat ko dix fois jëlaat un dixième mu dixième ba xaajaat ko dix fois ba mu mat lu kenn lu la neex taxul ñu mën a dabu sant wala boog gërëm xéewal googu nga xamante ni bii ni moom lañ yàlla defal looloo waral mu ni fa subhaana man law sajadna bil uyuni lahu ala shafa shawki wal mahma min al ibiri lam nablughi shukra min mi'shari ni'matihi wala al ashiru wala ushuran min al ushuri moo tax ma ne leen li may wax aka yomba dégg alquraan a ko wax nit bu demee ba am 40 ans nga xam ni am na intégrité physique am na intégrité mentale am na intégrité moral bu doon ndaw la te yàlla mën na ko yónni dëgër na alquran ni nit bu demee ba toll foofu yée ko war yii bi ci njëkk mooy qaala rabbi awzi'ni rabbi yow borom bi aw ni yenkewal ma yenkewal lan lay firi may ma kattan may ma force dëppale ma ak sa ay euh, euh, euh, nuñ koy waxee sa kattan anashkura ba ma mën a gërëm tu as vu ñaan yàlla mu may la kattan sol la doole joo xam ni ca ngay sukkandiku moom doole jooju moom yàlla mën caa sukkandiku ngir gërëm ci xéewal yam la defal kon looloo tax ma ñu la sax waxuma la sant waaye gërëm sax ñun mënuñ ko sax il faut que les choses soient claires aussi ah leen lu ci nekk nag ñu delloo ko ci delloowaayam dafa am solo mais bon nan dem rek alhamdulillah dëgg dëgg cant ga yàlla sant boppam bu ko delloo ci keneen ndax yeyoowu ko lillahi delloo ko ci buur yàlla moo tax da ngay wax ni alhamdu dëgg dëgg cant pour être plus simple lillahi aji saxla di ñeel buur yàlla rabbil alamin buur yàlla mi borom bindee fii waxoon naa baatu aalam nag lan lay signifier ci introduction ba muy univers yi nga xamante ne bii ni ñoom ñoo am ak yi nga xamante ne bii ni ñoom ñoo nekk ci biir univers yi ak li ñu composé yëpp parce que itam nag il faut ngeen comprendre baatu aalam li muy signifier aalam signifier wul mbindeef dafa fekk ni à l'inexistence sociale wala boog à l'inexistence humaine on peut pas on peut parler d'une existence sociale xam nga fu fu fu nit nekkul wala fu fu fu luy nokki nekkul kenn du ko tudde dëkk kenn du ko tuddee kër kenn du ko tuddee dara loolu moo waral alam ñu koy firee mindeef rek waaye aalam univers lay firi mais xam nga nag eh, univers yi dafa am lu leen eh, lu leen eh, di former waaw loolu leeraloon naa ko yaakaar naa ci cours bële ci diggante planètes yi systèmes yi galaxies yi ak univers yi parce que euh, il faut ngeen comprendre que ni en physique on dit toujours et puis c'est pas qu'en physique on dit c'est la vérité dañuy wax ni les planètes forment les systèmes les systèmes forment les galaxies les galaxies forment les univers à titre d'exemple tey boo jëlee lu mel ni li ñuy tuddee système solaire xam nga le système solaire fi mu ne du benn planète kese ñun fi mu ne suñu suuf sii nu nekk jàpp ni àddina la <laughs> matul sax matul sax ab dëkk <laughs> matul sax dëkk ngay gis ñuy xëccoo ay kër ki néeg <laughs> moo tax billahi noonu nit bu xamoon li xew chet tet noonu mais dafa garaw xoolal xoolal planétaire bi as pukus la as pukus ci planète yi gën a tuuti ci système solaire bi la bokk planète Mars ko ëpp fuuf Neptune moo ko ëpp fuuf Uranus moo ko ëpp fuuf ñun ñu ne fi xoolal di xëccu ay kër waaw fii sama kër la ñu ciy demante tribunal dañ yéegal niveau yi laa waxta ba caaxaan yi nit ëpp na loolu nit ëpp na loolu kon dafa am onze planètes yoo xamante ni bii nii boo boolee onze planètes yooyu ñoom ñooy formuler ce que l'on appelle le système solaire léegi nag système yi am dafa bari dafa mel ni nit rek xoolal dama la jox exemple nit xam nga nit tey di nga dikk ñu am lu ñu tuddee le système nerveux am lu ñu tuddee le système cérébral am lu ñu tuddee le système cardiaque lu ñu tuddee le système urinaire te pourtant ci nit ki la nekk te lu nekk système la léegi xoolal boo jëlee système nerveux dafa am ay cër yu ko composé cër yooyu lañuy tudde ay planètes léegi boo boolee système yi nga xamante ni bii ni ñoom ñoo nekk ci yaramu nit ki système yooyu la ñu tuddee ay galaxies galaxies yi ci nekk yépp boo leen boolee ñoom ñooy former univers bi te univers bi mooy nit ki taxaw moo tax nga dégg nit yàlla bi doon wax wa fii kan tawal aalamul akbar daa fekk nit umpale boppam waaye boo xamee boppam dina xam ni buur yàlla ngi ndëxëñ ci moom univers bu mag bii mais le planet forment les systèmes les systèmes forment les galaxies les galaxies forment te loolu yëpp boo ko xoolee mi ngi ci doomi aadama ñaata système la nit am ñaata galaxie la nit am te mooy univers bi xoolal nag univers yooyu et attention ah man je ne parle pas de planète je ne parle pas de système je ne parle pas de galaxie je dis univers yi am xam nga ñaata univers la mu cent vingt quatre mille univers am ñu ni non non non mille uni xoolal je dis mille seize mille univers <laughs> waa léegi xoolal xoolal seize mille univers benn univers bu ne la ca ne ci la ca nekk ci ay euh, système la ca nekk ci ay planètes yow nga nekk di xëccoo benn benn pokos tax buur ko wax de alhamdulillahi rabbil alamin nan dem ah moo tax gis nga yëf bu leeree ci sa bopp am na yu bari yoo xamante ni bii ñi da koy mujj rek teg waaw moo tax Maam Mor daan ko wax waaw bu fànn gi leeree waaw bu fànn gi leeree na fekk mu leer rek waaw Moustapha nee na wala ku koy leeral nekk fii ah waaw loolu it nag ca la moom léegi nag alhamdulilah rabbil alamin bon nañ ci yem noonu ah parce que téere bi aussi tamit scientifiquement dañ ciy firi ah dañ koy firi scientifiquement c'est-à-dire duñ ko firi rek mot à ba bata bat dem bu dee loolu ñu ba ko moo tax man leen quand je parle je parle à tous les niveaux waaw donc loolu la rek ah mun nag wasalaatu borom téere bi daldi dellu xoolal ni wasalaatu euh, Musaf du yaa yaa ngi gis ni muy waxee ah xam nga dani alhamdulillahi rabbil alamin ba pare daal ni wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin xaatimi nabiyina wa imami almursalin xoolal littérairement et littéralement ni muy bindee moom Abdarrahman wane na ni suufiyanke la niti yàlla la littérairement et littéralement xam nga lu tax gis nga boo demee ci nit yàlla yi xam nga lu ñu lay xamalam gis nga nit li muy wut yëpp bu ko xamee ak bu ko xamul su góorgóorloo tuuti am ko te bu ko amee lu mu ciy teg alhamdulillahi rabbil alamin waaye bu ko amee am na ku ko jottali di ndax am na ku dox diggam ak yàlla ndax yàlla du jëflanteeg nit directement mukk ci àddina yonent bee fa dox yonent boobu fa dox nag am na loo warloog moom mooy nga julli ci moom kon gis nga borom téere bi littérairement ni mu bindee littéralement ni mu tërale baat yi moo lay xamal ni moom xam na li xew loolu rek la bëgg a wax gis nga ko kon boo nan dem euh, mënee su koo firee ci wàll yëpp it nag day daal di metti waaye nag ah ngeen baal ma de man nii laay firee wa salaatu jullik wa wasalaamu ak jàmmi buur yàlla ala sayidina yàlla na nekk ca suñu sang ba muhammadin yontu yàlla muhammad léegi nag mu mel ni xam nga fee rek daf ne wa alihi wa sahbihi waaye fii tey xoolal dafa mel ni dafa joxe une une une wala boog euh, euh, je sais pas Euh, benn euh, leeral wala benn euh, voilà ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw wasalaatu wasalaamu ala muhammadin ñu ko kuwaa ko kan mooy kan mooy kan sayidina kan xam nga ñun dañuy wax xaatimi nabiyin mooy ki mottali ràngub ñi yàlla solo e waay ku tol ni yonent bi sallallahu nga naan moom mottali <laughs> xel daa nanguwul loolu sax <laughs> moom daal kéemaan la yalla ñaar doolu sutura rek waaye daal xam naa ni yëf yi itam il faut ñu xoolaat ko nag Musaf xam nga yow mënuloo toog nga ni ti bi sallallahu alayhi wa sallama moo nekkoon ca yonent yàlla Adam nde bu génnee ci moom mu doon xottu nit wala boog moo wax mu gën a simple ñun kan mooy suñu yonent ñun du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du mooy suñu yonent moom la yàlla yónni ci ñun mu ñuy xibaar di jëlee information di ñu indil waa léegi yonent yi ñoom ci seen bopp ay nit lañu wala duñ ay nit ay nit lañu léegi ñoom kan mooy seen yonent wala ñoom amuñu yonent léegi kan mooy seen yonent ñoom yonent yi du yonent bi mooy seen yonent sallallahu <laughs> loolu moo waral boo xoolee borom bushra laqad nilna al muna bi dal hilali zahiri wa zaarana shahrul hana wallahi ba mu yegg boo ca demee ma ngay wax naan fa huwa nabiyul anbiya min awalin li axiri fa huwa safiyu l asfiya wa sayidu l akabiri sallallahu alayhi wa sallama du moroomam kenn laa wax ah, ah moo tax nañ def ndànk ci baatu xaatamun nabiyin baat bi daa am lu muy firi waaw moo tax da ngay wax ni foofu moom yonente bi alayhi salatu salaam nabiyul anbiya maanaam yonan yi ci seen bopp cent vingt quatre mille yi bi mooy seen yonent ñoom dañoo am yonent nag na leer si nag min awwalin li axiri la ko tàmbalee ca yontu yàlla Adam ba ca yontu yàlla Isa ku ci yàlla mës a yónni yonent bi la yàlla doxalee ki sa digga ak moom ni ngay informé nit ñi noonu la la yontu yàlla Muhammad di informé waa léegi loolu nan la mënee nekk ba pare nga dikk ni mooy ki mottali rang yonent yi ça c'est une contradiction déedéet xam nga mottali gi du mottali ku mujj ñëw waaye mottali kumu ci yonent yi yonent bi moo ne ci yow bu génnee ci yow nga doon xottu nit moo la tax a mët baatu mottali gi loolu lay firi waaye du mottali ku mujj a ñëw wala leerul ba tey looloo waral boo demee Sidi Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu bi muy firi baatu xaatamu nabi te sax li yonent bi laata Cheikh Tijaani yonent bi sallallahu moo ko waxal boppam ah da ngeen fàtte xadis boobu Seydina Jibril la yonent bi sallallahu alayhi ah bi mu dikkee di waxtaan ak moom rek eh, moom Seydina Jibril daal di ni yonent bi alayhi salaatu salaam maag yow kan moo mag ah ah yonent bi sallallahu alayhi ni ko ah seetal rek maag yow ku mag Jibril ni ko ah, ah bu ma dul magit maa ngi fii bëgg a yàgg de bu ma dul magit ngi fii bëgg a yàgg yonent ni ko ahadi ah, mu ni ko waaw yonent ni ko lan mooy sa baromètre yow luy sa nattukaay Seydina Jibril alayhi salaam daal di ni ko am na benn bidéw bu daan fenk ca ron arash bidiw bi bu fenkee balaa suux dina def soixante dix mille ans soixante dix mille ans te bu suuxee balaa moo fenkaat dina defaat soixante dix mille ans te gis naa ko soixante dix mille fois man Jibril yeneen ni ko laay Jibril xale nga <laughs> sallallahu alayhi wa sallam xanaa xamoo nag man bokkoon na ci li tax man ay affaire am du ma ci dugg de yonent bi billahi alladi la ilaha illa hu ni nit ñi ñeme ñe def ma ëlëm sallallahu alayhi wasallam ni ko nit ñi ñeme ñe def ma ëlëm xaw ma dañ koo xamut xaw ma lu xew yonent bi ni jibril wallaay jibril gone nga te wallaay gone la ci kanam yonent bi ahankay ni ko ana zalikal kawkab xat jibril maay maay boobu bi di waaji allahu akbar ah, sallallahu alayhi wa sallam la hawla wala quwwata illa billah yàlla ñu yàlla dimbale waaye bon da ngay wax ni ñu dem tuuti rek xoolal xaatamu nabiyin bon yonente bi alayhi salaam moo ko firil boppam ca xadis ba mooy ba muy wax naan inni inda allahi fi ummil kitaabi la xaatamu nabiyiina wa inna aadama la munjadilun fi tinatihi yonente ko wax inni man yonente bi alayhi salatu wassalam inda allahi fa yàlla la xaatamu nabiina man may ki nga xam ni ku mu ci yonente yi ma ne ci yow ku ma génn ci yow nga doon xottu nit te loola ba muy am xam nga kañ la am ñu ni ko ah, mu ni booba yàlla bindagul jàm ñi de bay yónni kenn ci kenn booba ma nga amee fii ummil kitaabi ca lawxul mahfuz foofa laa wax te loola ba muy am wa inna adama werante amul ci ne yonent yàlla adam la mun jadirul ma nga rokkosu fii tiinati yi ca biir banam ba booba yàlla bindagul sax yonent yàlla adam existé gul booba laa nekk xaatamu nabiyin kon na ngeen comprendre que ni xaatamu nabiyin ci yonent bi alayhi salatu wasalaam bu ñu koy wax loolu il faut ngeen comprendre ni du titre ci moom déedéet du définition ci moom déedéet du tur ci moom déedéet mais maqaama la ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu na ko nit ñi xam baat bu diis la ah maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi waaye wa xaatama annabiin waaye seetal wax bi yow kooku borom bee ko wax nag kon nag yonent boobu moo di kan mu ni wa imaamil mursalin kooku mooy njiital ñi yàlla yónni a ah, xanaa boo firee bii sax de war a mën a d'accord ak man boo ne wa imaamil mursalin njiital ñi yàlla yónni ça ne peut pas une contradiction c'est pas possible tu ne peux pas nous que yonent bi alayhi salaam moo mujj ñëw ci yonent yi ba pare nga bëgg a wëlbatiku waatu waxaat ni moo jiite ña nga xam ni ñoo ña yàlla yónni luy loolu kon moo lay xamal ni xaatamu nabi in firiwul liñ koy firee ñu baal ma waaw bi mooy imaamul mursalin la shakk waaw mooy imaamul ambiyaa wal mursalin hmm. foofu duma ma fi taxaw sax aka bëgg tur woowu nag sallallahu alayhi wa sallam salli ala imamil anbiyaai wal mursalin hmm. Hmm. baax na kon ñu dem tuuti tey nag ñu ngi dugg nag ci téere bi fi mu ne fii la téere bi tàmbalee coow li nag mi ngi soog a door fi mu ne borom téere bi Seyd Abdurrahman al Akhdari indi na problème ndax gis nga fii mu jëm nii buñ ko lijjantiwul nañ ba julli buñ ko lijjantiwul nañ ba woor buñ ko lijjantiwul soxlawul ñuy dekk di di sonn ci ay dem màkkaa ki yëf yëf yëf yooyu jaru ko ndax du jariñ dara léegi nag kon nag mbokk yi ah mu ngi noonu waxtu wa la ma ca amoon na allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uliq walxaatimi lima sabaq nasiri alxaqi bilxaq